Bassirou Diomaye Diakhar Faye ordinateur bi mu toog poste direction yi cinquante quatre des na nee boo xoolee ci article maanaam li nga xam ne ni loi may na ko président mu war ko sañ ci décret ëpp na mm. juróom-benn junni mm, en tout cas bëri na dama ne président président Bassirou Diomaye Diakhar xam nga lu mu yor ordinateur bu too lay rek gis poste yëpp taxaw li mu war a def décret lépp li mu war a décret li mu war a bind ci décret mm-hmm. bari na benn peeru bari boo xamante ni kenn xamul nu mu toll donc loolu la président Macky doon wax naa dëggool ma la dama ne loolu la président Macky Sall doon wax séntu asamaan jarul buuti buuxante parce que Sall état moo yaatu mhm. donc ñoom ñëpp xaj nañ ci ba ñeneen xaj ci cadre yëpp yi nekk Pastef mën nañ leen jox ndomba tànk. Mm. ba ñeneen sénégalais yi xaj ci ñu jox leen ndomba tànk. d'accord am na ay. Euh, euh, mais na nga fekk rek nga am compétence. voilà waaw c'est ça parce que dafa am ñoo xam ne dañoo jege loolu Diomaye jege loolu Ousmane Sonko. Mm-hmm. doon doon leen xeexal bu baax a baax mais ba tey tey tey ji ñu wax ngeen tembe amaguñu poste. Mm-hmm. waaw bu ñu yàkkamti. te ba léegi ñu ngi continué di ànd ak ñoom. parce que xam nga xam nga non yee Guy moom bàyyi assemblée nationale lu muy am leneen. doo ci bàyyi non. ah d'accord. Non, non. Non, non un peu sérieux non non je n'ai rien contre Guy copain euh, il est bon à l'Assemblée nationale mais pour l'instant pour l'instant Bir présidence mën na technique du président de chargé de l'éducation sama conseil technique du président de la République chargé de de de de de l'éducation mm. comme mon nek directeur au niveau du ministère de l'éducation nationale mon nek fa jox direction au niveau du ministère de l'éducation nationale bon, muy diriger mm-hmm. parce que professeur là, am compétences compétence par exemple directeur de l'éducation rek mm-hmm. waaw directeur de l'éducation mais mon nek jox direction direction de l'éducation amul éducation nationale mm-hmm. mais mon nek fa jox direction comme la direction de la formation et de la communication mon nek ko ko jox mu diriger ko parce que am na compétence parce que nit da ngay xool li nga kon nañ séntu Guy Marius Sagna tamit mu nekk directeur de la santé. non non non Guy Marius Sagna il est bon à l'Assemblée nationale. soo joxee. cest dire a la ko. Ah. ak bras de fer. xam nga tax ma ne la Dame Mbodj. Hmm. Dame Mbodj il hmm. da nga koy jox joxi joxi njëgandiku. est-ce que bëgg na ko. mais il est bon c'est-à-dire dafa am loo xamante ay profil la xoolal déglu déglu ay profil la dafa am profil yoo xamante ne parce que assemblée nationale dafa war a dund. Mm. dafa war am ay débat mm. ay niveau yu élevé. Mm. mais soo fa dugalee Bassirou euh, comment il s'appelle euh, Guy Marius Sagna ak Dame Mbodj bi dana taxaw. parce que il faut mu am ay cadre Cheikh non non non c'est religion pour être dans le cabinet comme conseil spécial chargé des affaires religieuses. Mm-hmm. <laughs> est-ce que tu comprends. Mm-hmm. oui dans le cabinet du président de la République comme dans le cabinet du premier ministre. Mm-hmm. comme conseil spécial des des affaires religieuses. est-ce que non affaire bi du salaire. Ah, affaire nous, nous, nous, nous, mais nous, nous, nous, nous, nous, Ngom nous, nous, nous, campagne nous, nous, nous. campagne la askan campagne moy lolu moy lu bari am nañu bari ñu ñu andal mm-hmm. amuñu compétence bi wala amuñu dip amuñu diplôme bi pour mëna occuper yenn poste de responsabilité mm-hmm. parce que pour nek pour nek conseiller technique wala pour nek directeur il faut nga nek fonctionnaire de la hiérarchie A chevele la dal mm-hmm. waaw CV mm-hmm. ce que tu comprends mm-hmm. Mm-hmm. loolu pour nga mën a gérer moo tax ma ne la daam mën na nekk conseil technique chargé de l'éducation wala mu nekk directeur de la formation et de la communication suñ naree dem assemblée nationale ñu dugal ko fa mu nekk un député yor fa sax président groupe parlementaire mën na nekk mën na nekk parce que président du groupe parlementaire mais nag nga xam ne moom bokkut bokkut Pastef de. waaw mais non xam nga fi ne nii nag moom xam nga jamono ji moom nañu xam xam nga mbirum mbirum non. président groupe parlementaire nag dafa a bokk sa tax. affaire de parti sax moo fi nekkatul jamono bokk na ci coalition bi. Mhm. mais mi ngi askan wi mun na nekk. bu xëyee meebu nag. du meebu daam du meebu. ko. daam du bu daam du waxal waxal waxal du meebu. Hmm. parce que c'est un combattant parce que xam nga taxawaayu syndicaliste la am. dafa am lu mu taxawaayu syndicaliste bi mu bi mu am moo tax nga war ko dugal euh, biir assemblée nationale. Hmm. mu war a defanteeg opposition bi. te tàmm na loolu xeex te tàmm na xeex. billaahi. enseignant yi nañ ko assemblée tamit. si ah, soxla nañ ko ah. di yéen kees rek. di non pas non pas dóori assemblée nationale war na dépasser fu ñuy dóori. Hmm. c'est-à-dire maanaam bu ñu leen tegee bu ñu loolu lañ soxla il faut ñu am ñoo am d'idée dama bëgg ñu la xam ne rek xeex boobu débat d'idée bi débat d'idée bi lañ soxla biir assemblée nationale mais pas pas ay maajee rek hmm. ay kuntaabaak ay dóor ci biir ak ay hmm. nangam sax pas ay xaste hmm. parce que tamit ñuy wax rek te yàlla tax treizième législature bi moom la fa xew musul am ci assemblée nationale. dëgg la donc demee ba ba ba vers deux mille vingt cinq parce que xam naa ne ca lañ koy dissoudre. Mhm. vers deux mille vingt cinq ñu dissoudre assemblée nationale. Mhm. suñ ko dissoudre ba pare ñu xool profit ba bu baax. Mhm. te li ñi ñi xamul lu nekk xaj na seen ma wax ko sénégalais yi. dissoudre assemblée nationale. ñaata at mooy des boobu du deux ans. deux ans waaw mois yi la calculer mois député yooyu ñu dissout te ñu génne leen ca dañ leen di fay seen salaire. Mm-hmm. liñ jotoon na maanaam dissout. li la des li des si seen la euh, des yëpp dañ leen koy fay. kon luñ ciy desidul. ma doole xam nga lu ñuy perte. Ah. Mm. indemnité yi. Mm. mais luñ déglul bu baax li ma la wax. indemnité yi lañuy ñuy perte. Mm. mais salaire ba salaire u député c'est pour cinq ans. c'est pas pour deux ans. dang len koy fay te duñ liggé dang len koy fay ba mu mat sëkk. loolu perte la mënon nañ ko def si. dund indemnité bi ñu defoon ci biir salaire ba. moy mhm. 1 million bi pour auto bi. Mhm. duñ ci jot. est-ce que dañ ko décider récolte est-ce que ñaar ñaar 300000 1 million déedéet. Ah, député amul 1 million 300000 cent mille. Mhm. Eh ay way tey waay tey ñoo wax sénégalais yi dëgg. motax tax may laajte député mi ngi am 2 millions 450000 ni 13 nii. législature bi simple wala vice président. député simple député simple la la wax. 2 millions. quatre cent cinquante mille. un million trois cent bi mooy salaire u député bi. un million ba ca des. mooy indemnité prime bi ñu teg pour nga jënd ko oto. kat mhm. sept cent mille la woon. Mhm. ñoom ñu ne dafa tuuti bu noo ci jënd oto. Mhm. bu toll zéro kilomètre. ñu defal leen ko un million. ñu dale ak cent cinquante mille boo xamante ni pré indemnité de logement la prime la pour logement. député yi neexle

dañu am seen gestion à part bu bokkul ak keneen. Mhm. Mhm. donc ku yaakaar ni suñu dissoudre assemblée nationale yi député yi dañu tarax yaa ngi nax sa bopp. tëdd muy dox. dégg naa ab sama sama xarit la sax. maam mhm. Ousmane. ma koy nuyu au passage. mu naan suñu defee motion de censure député yi dañ koy dissoudre te ñoom dañuy perte salaire du ñu salaire de suñ ko dissoudre dañ leen di fay un million trois cent yi. loolu waaw lu ma jaaxal lan moo tax ñu nëbboon ñu nëbb sénégalais li ñu mel lan moo tax ma ne la un million trois cent kon trois am parce boo xoolee. boo rombee kër romb jeune romb ki danaa la un million trois cent. moom mooy déggoo li ma la dama ne. <laughs> bi moo koy dénoncé quoi. Hmm. mais xam nga ni ba président ne xam nga jëndatu ñu oto. waaw député yi jox ñu leen oto. Mhm. parce que dañ ko doon dañ doon kaas député yi war ñu leen jox oto. Mhm. ñu ne te état bi jëndatul oto ah, dañ koy mhm. wax sénégalais yi. état yi état bi jëndatul oto. dafay jël ci salaire bi mu teg ci ci salaire député bi mu teg ci cinquante mu teg ci sept cent mille francs pour nga xam ne soo demee ci concessionnaire ba mu lay dagg sept cent mille francs yi nga jënd ci oto. day gaaw sax. est-ce que xam nga ko nañ dafa tuuti. Mm-hmm. opposition bi moo ne woon dafa tuuti opposition bi fi nekkoon. te nekk tey pouvoir. pouvoir doo ne 700 mille yi dafa tuuti. ñu tegal leen ñu ci ah, 1 million rond. Mm-hmm. nga xam ni chaque mois. en am oto bu da ngay am mille francs moom lañ lay viréel sa compte. Mm-hmm. maintenant suñu dissoudre assemblée nationale bi. njëgu oto boobu ñu ci tegoon day dañ. te loolu député simple la bokk ak ñeneen. député simple yi. njëgu oto boobu day dañ. njëgu indemnité de logement bi day dañ parce que jëndatoo auto jëndatoo logement. way liggéeyoo ñu lay fay 1 million. non non xam nga nak nee la république. république si yaangi yaa ngi est loolu c'est-à-dire yaangi ngi liggéey. xam nga xam nga noo def déglu bax lima la. dama né mm, mm. non li fi amone la lay wax. Mm. dama né député assemblée nationale. Mm-hmm. session lay liggéey. dafa am session ordinaire ak session extraordinaire. Mm-hmm. ak ay question su session question session ordinaire bi moy am ouverture session bi day ubbi tëj mooy la loi de finance initiale session bi day ubbi. Mm-hmm. tëj. Mm-hmm. la loi de finance rectificatif day am session. Mm-hmm. mais day am session extraordinaire moy suñu à ay procès de loi suñu voter ay ay questions aux parlementaires ak loolu mooy section député. te dañuy masalaat de ginnaaw loolu bu non xam nga déedéet xam nga député dafa am dafa am suñu suñu suñu liggéeyee ba ba par session bi jeex. Hmm. su session bi jeexee suñu voté budget bi ba pare. Hmm. xam nga xam nga randonnée la. Hmm. député bi day sonn. dafa am indemnité buñ koy tegal su session bi jeexee ci salaire am. maintenant ñoom suñ ci d'accordul parce que am na ñoo xamante ne nee nañ député dañ ko war a fay session. session ba session lañ ko war a fay. mooy su ñëwee toog session ñu fay ko. Hmm. mais soo xoolee salaire bi ñu koy fay par mois soo ko daggee par session mat na ko mais nag ñoom suñu ñëwee mun nañ apporter des réformes par rapport à ça. Hmm. ne député bi léegi pour ñu fay ko mooy day ñëw toog su suñ ko defoon c'est suñu jamono Ousmane Sonko lu muy fayee ko par mois du bari. du bari. parce que daan loolu ñëw session. Hmm. da daan ñëw lu ko intéressé mu ñëw toog su ko intéressé mu dem toog. mais man li ma bëgg laaj foofu de revenu début

mu bañ a jaar assemblée nationale il peut diriger par ordonnance mm-hmm. donc mën na bañ a soxla mën na a limite wala amul a soxla assemblée nationale pour mm-hmm. beaucoup de choses mm-hmm. maintenant puisque assemblée élection dafa cher dafa coûte à l'état te pouvoir bu ñëw li ma ci jaaxal nag mooy ñoom ñoom dañ ne woon dañuy bëgg pouvoir bi di équilibrer assemblée nationale ak ak ak pouvoir waaw ak non xam nga pouvoir bu ñëw mënul am foofu bëgg nga institution yi pouvoir bu ñëw doo leen ko bañal. Mm-hmm. bëgg nañ jiite seen nit nekk président assemblée nationale. bien sûr donc pour ñu am une majorité. Mm-hmm. pas mécanique même su mécaniqueul sax. Mm-hmm. xam nga majorité bi bennoo am nii c'est pas mécanique. mais ñoom bëgg nañ am majorité même su nekkee dañuy am 86 députés sax. bëgg nañ am majorité boobu non pas 86, parce que 86... non parce que am na loi yoo xamante ni pour nga ñu mun ko jàllale assemblée nationale il faut nga am 90 députés. lolo tax lolo tax mëno dissoudre conseil économique social mëno dissoudre au oh, conseil des collectivités territoriales mm. parce que pour nga dissoudre ñooñu il faut nga am ba au ba mo 90 ba 99 députés kon la nga dissoudre assemblée da ngay dissoudre ñooñu ba paré mm. waaw xam nga. assemblée mënul nekk mënul nekk. Mhm, loolu loolu nekk mënoo leen dissoudre parce que il faut nga am majorité assemblée nationale ba pare. donc waaw su leen ko majorité bi mayee. par élégance républicaine loolu tax ma ne la suñ leen fayee seen bor. Mhm. dina metti mais puisque dañu toll ci nguur goo xamante ne dafa war a ñëw taxaw. Mhm. maintenant il faut voir naka la président di def te xam naa ne président Macky Sall ni leen dimbale woon ni leen dimbalee FMI ak ak Banque mondiale dina leen ko dimbale bii assemblée nationale pour li nga xam ne bëgg nañ ko doxal ñu doxal ko. xamna ni député yi duñu nangu ñu dissoudre conseil économique et social. Mm. xamna ni député yi du nangu ñu dissoudre au conseil des collectivités territoriales. Mm. parce que c'est ni camarade ño fa né dañu war dem mm-hmm. campagne. du deug mm. te dañuy préparer élection législative. Mm-hmm. duñ ko nangu. Mm-hmm. cay pecxo te te te le député nak mu neex ñu mu naqari ñu ay politiciens lañ. deug la c'est ni intérêt la ñuy défendre. kenn mun leen ko bañal.